salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 dañu koy tàmbale ak transfert ki nga xamante ni mooy Mbaye Niang l'international sénégalais dal dinay signé ca Empoli ca Serie A bu Italie moom mi nga xam ne ca Adana la nekkoon Adana Demirspor ca Super League bu Turquie dal dina fay jógee signé fële ca Empoli gi nga xam ne ñoo ko doon xëccoo ak Genoa loolu transfert la boo xamante ni officiel na keneen koo xamante ni moom itam ay mbiram leer na muy Aliou Badji bi nga xamanteni mu ngi woon foofu la ci Girondin Bordeaux dal dina fay joge mom dañ ko able fele ci Super League bu Turquie mom itam waye nak ci club bi nga xamne moy Gaziantep Gaziantep nak moy équipe bi nga xamne voilà ki len jité manam sen capitaine mooy Papimiso Djilobodji moy ki nga xamne mo len jité voilà mom lañ ko dal di able ba saison bi dal di jeex manam 30 juin 2024 mom ki di Aliou Badji gannaaw lolu jangat nañ ci kay di xibaar ne sélectionneur national di Aliou Cissé dafa wara tekki ndomba tankam loolu am na kayiti xibaar yu ko xamle voilà nee nañu nag xibaar bi fa mu jógee mooy benn journaliste ba ñuy wax Malang Sané moo ko dal di xamle ña kii di Cissé daal dina quitter li nga xamante ni mooy sélection bi loolu nag dina nekk xibaar boo xam ne xëy na du Sénégalais yëpp lay neex donte ne fi mu ne nii moom ñu bari mer nañu waaye dina am ñoo xam ne xëy na duñu ko gisee noonu voilà mer nag moom dal di dégg maam wax li la naqari jàpp naa ne dara nekku ci waaye nag li nga xam ne moo jëte xew moom Cissé du ñëpp ko bañ wala du ñëpp bëgg mu dem ndax li nga xam ne moo xew mooy diggante file kan bi nag moom soreetul xëy na bu fekkente ne nar na fi jógee it day war nañu indi ko pare koo xamante ne du ñëw di jàng wala muy jéemee ci suñu équipe bile ndax kat kan bi lañ ci des comme ni leen ko waxee at la ak ay weer képp mooy bi ñu war a amal ni ki déwén foofu la ca Maroc léegi daal loolu mooy xibaar bi gars yi topp nag mbir moomule donte ne dégguñu ki nga xamante ne mooy Cissé mu dal di wax ci taskatu xibaar ne dafay tekki doomu tànkam en tout cas loolu xibaar la boo xam ne seen na ka ko wax nag xañ na moom ndax daf ko dégg ci Cissé wala boog dafa wax li nga xam ne moom ak njortoom la en tout cas xibaar bi moom wër na li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi Aliou Cissé nag juróom-ñeenti at ci ren mu ngi ci bopp équipe nationale bi mën na depuis moo ngi fi voilà yaakaar naa dund lu neex dund nañu fi lu naqari même bu fekkonte wane day tekki ndomba tànk mit Sénégal dañ ko remercier ci li nga xam ne jot na ko fi def waaye daal loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne comme ni ko war dinañ wéy di ko topp donte ne am na ñu mer lool sax ñëpp mer nañu mën naa wax loolu waaye itam du ñëpp bëgg mu dem am na ci ñoo xam ne bu ñu sañoon mu des fi lu mu gàtt gàtt fileeg déwén ba xam ndax dina am coppite ci doxalin wi ndax kat li nga xam ne mooy njumte yi nga jot a ci li nga xam ne mooy kaan bile joué ses match yëpp gagné ko voilà ñëw ci li nga xamante mooy huitième de finale yi ñëpp war la moytu ngay moytuwaate xam naa ne loolu moom xëy na mbir la moo xam ne du ñàkk moom dina ci jàngat waaye daal tekkee ndooma tàngam xëy na ñu bari du la neex waan loolu moom dama leen di bàyyi ku nekk joxe si sa xalaat en tout cas dinañu wéy di topp mbir moomu

voilà ba xam ndax dina tekki ndomba tànkam ak bu fekkee ndax daf fiy ndax kan la indi ndax dinañ indi ko pare koo xam ne dina mën a continuer li ñu fi am ngir déwén ñu war a mën a moom na supporter doon ko ne mer am na waaye yaakaar naa ne ñaari fan yi moom lu waaye doon am lu ko na xar yi wax na ko waaye nag dem ba ci euh, aéroport bi di ko yoxoo moom jàpp naa ne lu mën a ñàkk la voilà loolu moom ñu ngi koy ñaawlu voilà sénégalais ay sportif lañu moo tax léeg-léeg yéen bu amee donte dinañu mer waaye danañu xam fi ñuy yem waaye dem ba ci ay euh, dégg nga maam aéroport di yoxu ki nga xam ne mooy Cissé voilà di ko wax mu tekkee ndomba tànkam jàpp naa ne loolu mën na ñàkk loolu décision la boo xam ne xëy na dina ko jël voilà wala bu fekkent ne jëlut ko ba noppi sax ndax kat li nga xam ne moo des ci contrat bi moom yaakaar naa ne bareetul ndax bi muy prolongé contrat bi li ñuy jële woon ci taskatu xibaar yi mooy daf ko yóbbu ba li nga xamante ne mooy ñu jógee ci kaan bile amaana bu fekkente ne jeexul itam wala jeexul léegi li ciy des ay weer lay toll du bari kon nag loolu yëpp nekk na mbir yoo xamante ne yaakaar naa na ko muñ ñu bàyyi ko mu jël li nga xamante ne mooy taam xalaat ci jàngat jumte yi nga xamante ne def na ko bu fekkee dafay continuer mu jéem ko rectifier bu fekkee dafay dem voilà loolu ay mbir la yoo xamante yaakaar naa ne ñoom ci fédération bi wala ci sélectionneur bi lay jógee mais dem ba ci aéroport di ko yoxuwaat moom yaakaar naa loolu mën a ñàkk la te ñu ngi koy ñaawlu gannaaw loolu ñu gis ne li nga xam ne mooy kaan bi ñuy amal ci jamono bii kat mën nañu gis ne équipe yi gën a mag ci Afrique fii kenn desatu ca ñëpp toog nañu mën nañu wax loolu maanaam juróomi équipe yi nga xam ne ñoo am classement bi gën a baax ci classement FIFA toog nañu ndax bu ñu xoolee équipe yi nga xamante ne ñooy jiitu fii ci Afrique voilà ci li nga xamante ne mooy classement FIFA mooy juróom yi ngeen di gis ndax kat ñii di waa Maroc xam ngeen ne mooy number one fii ci Afrique nekk 13e ci li nga xamante ne mooy classement FIFA mooy ci topp 20e la nekk ci classement xoolee ci ginnaaw Sénégal googu la ñii di waa Tunisie ñoo ci dal di topp ñoom ñu ngi ci lii di 28e Algérie ñoo ci topp 30e la ñu nekk ci e place bi ñii ci lii e fii ci Afrique juróomi équipe yi nga xam ne ñoo jiitu ci Afrique voilà lii di quart de finale amul ci kenn koo xamante ne jamono bii des nga ca mu nek lu doy war kon kan bi man nañu gis ne biti takar takkar na bari nañu waye tam équipe bi magi ñom itam ñu leen di toroxal nek mbir yo xamanteni voilà nek na gan ci kan bi Maroc rek mo ci ju dembu dañ ko éliminer ci match bi nga xamne do nako am digënté ak Afrique du Sud xëy na Sénégal fi ne seen wala bok sedd na waaye Maroc mom seen bos tank jeur la def ci jamono bi ndax yaakar lañu amone amoon gannaaw coupe du monde bi nga xamne nañ ci ñu ba ci demi finale yi bu ñu xolé nak match yi wara am ci li nga xamanteni moy quart de finale fi ci aljuma ji lañu koy tambali japp samedi bi ajuma bi Nigeria dina jouer digenté mak Angola Bobu 17h lay doon waye tam ñi nga xamanteni ñom lañuy wax RD Congo dinañu jouer sen digenté guiné Bobu moy doon 20h ci li nga xam moy samedi bi moy le 3 Cap Vert dina jouer ak Afrique du Sud Bobu 20h lay doon lu ko jitu ci samedi bi manam bu tàkkusaan jotee Côte d'Ivoire ak Mali bi nak moy match bi nga xamante ne na dina neex lool muy digenté Côte d'Ivoire ak Mali kon li moy ñent match yo xamante dess na ci muy juroom ñet équipe yi dess ci camp bi jamono ki nga xam ne mooy Eric Ten Hag dal dinay addu ci li nga xamante ne mooy problème bi nga xam ne kii di Marcus Rashford dal dina koy am ak équipe boobule jamono bii nag bëggatul kenn ku ci wax ci li nga xamante mooy conférence de ko ci laajee li mu wax mooy mbir ko gannaaw case close voilà loolu nekk na loo xam ne saafara nañu ko ba noppi Rashford dañ koy dugal ci squad bi dina disponible ci match yi nga xamante ne bu ngi ñëw ci suñu kanam voilà mu ngi entraîné ak groupe bi beruñu ko amul benn daan bu ñu ko teg te loolu nag nekk loo xamante ne yaakaar naa ne xalaat la ndax kat bu fekkente ne joueur bi ber nañu ko fileeg coow loolu jeexul wala mu duggaat ci équipe bi yaakaar naa coow loolu du ko fàtte fu toogee ci kanam journaliste dinañ ko ko laaj a yomb ci ñoom wala bokk li leen ko ci moom dal na ci li nga xamante mooy night club mooy génn na xaaju guddi dem party ji gis na li ko ci fekk am na ay daan yu ko ci te yu ko ci fekk te moom it moom dal dina koy nangu ndax xam na ne moom moo def njumte kon loolu nag ko gars wan ginnaaw dañuy continuer jouer ndax gagné ay match fi mu mooy ñu ñor dañuy soxla ay victoire voilà ngir jekkal li nga xamante ne mooy suñu taxawaay ci li nga xamante ne mooy championnat bi mais mbirum Rashford moom fi mu ne wan nañu ko ginnaaw lii moom la dal di gaaral ci kanamu taskatu xibaar yi gannaaw loolu tam transfert na wax na leen fi sànq bu ne mooy Aliou Badji am na benn joueur boo xamante ne war na fa jógee dem ci Olympique Lyonnais voilà muy kii ñuy wax Mangala moom nag waa la moom Aurel Mangala bi lee dafa war a dem foofu nga xam ne mooy ci Olympique Lyonnais xam nga ñu ngi doon wax Saïd Benrahma ñoom ñaar ñëppay dem foofu la ci Olympique Lyonnais lu mbir la moo xam ne sotti na voilà kayit xibaar ñu ngi xam ko faa able waaye able gi sax de mën nañu wax ne daanaka jënd la ndax 5 millions d'euros na ci li nga xam ne moo tax ñu bàyyi ko mu dem foofu la ba saison bi jeex ñu am option d'achat bu toll ci 12 millions d'euros muy ñaari joueurs yoo xamante jamono bi seen transfert ne nañu daanaka sotti na dañu war a dem foofu la ci Olympique Lyonnais ki nga xamante ni mooy ca Fiorentina loolu yi moom a xam ne sotti na ki xibaar dañoo xam ne dafa dellu waat commencé entraîné mu ngi commencé daw gannaaw bi nga xamee ne kat Égypte ñu ngi doon dundee yaakaar dal di dem ci demi-finale ya wala boog final kii di Salah fekk waat leen ci li nga xamante ne mooy kaan boobul waaye mbir moom sottiwul li nga xam ne moo xew mooy Salah kon dafay entraîné waajal boppam ngir dellu waat ak équipe boobu di Liverpool ndax kaan boobu ñoom pare nañ ca waaye daal xibaar bi am solo mooy Salah commencé na entraîné te loolu xibaar bu am solo la pour ñii di waa Liverpool bu dee Erling Haaland jàngat nañ ci kay di xibaar moo jote xew ci atum bi daf ci jàngee lu bari lii nag de kayiti xibaar bi ñuy wax as moo ko dal di biral ne nañu daal dafa xam ne ne kii Erling Haaland bi nga xamee ne jox nañu Lionel Andrés Messi li nga xamante ne mooy voilà FIFA the best naka noonu jox ko tam li nga xamante ni moom la ñuy wax Ballon d'Or bi daf ci jàngat carrément ci ne day moom dëgg-dëgg moom dafa war a dem ci équipe bu mel ne Barça wala Real Madrid ndax loolu daf koy dimbale ngir a mën am trophée yu ni mel ndax nga xam ne liggéey ko diggante daaw ak ren jàppoon na ne xëy na atum ren bi kenn du jël lenn ci kanamam waaye lépp xëy nañu ko ko loolu na kayit xibaar bii di AS ca Espagne moo ko dal di biral loolu mbir la moo xamante ne xëy na dinañ ci dellu si waat tax Man City nag du équipe bu ndaw boo xam ne da nga fay soxla dara rek mu dem bu yomb la noonu en tout cas xëy na mbir mi dina jafe ci ñoom wala bokk dina cher lool ci ñii di waa Real balaa ñu ciy jot loo ci mën a dégg ñii di AS ñoo dal di biral xibaar bu nu mel ki nga xamanteni mom moom lay wax Jérôme Boateng moom dafa daldi dem fofu la ca Salernitana Salernitana nak mooy équipe ki nga xamne mom moom la wax Boulaye Dia voilà moom nag nekk ancien joueur ñi di waa Bayern Munich diggante daaw ak ren wala man nañ wax ne ci juróom ben weer yi mom amul won club wala mo ngi don entraîneur ak ñi di waa Bayern mu jul amat contrat ak ñom déggoo amul seen diggante ci Italie kon la mujjé dem moom kii di Boateng fofu la ca Salernitana budé ki nga xamné mom lañuy wax Gabriel Paulista mom nak dafa dem ci Atlético de Madrid free transfer la nak dafa joggé ci Valence voilà maanaam jaay ñuko mais agent libre la momi transfer la bo xamné sorti na. gaay li moy li fi gënon fess dinañ ci waat ci kanam ak yéne info kon ne leen suivre Sen Sport 220 ans Tobias sport news channel.